Nabou man du ma sa moroom si wan du ma sa moroom si tout du ma sa morom du ma sa moroom Nabou su leen nag geer nga bëgg nag aha tegal geer boobu yëpp te ñëw geer ak man man daw ma saalo yaay ndeer gis ma ma ni patt nii rek muy yow ak mami Ndiaye ma ngay wax ak moo la yónnee ak yéen ñëpp laa yamale mami njaay ma la yónni moom mënoon nga koo wax mu bañ la koo nettali te geeral geeram bopp bi dama koo fekk ak li mu gën a bëgg li mu gën a bëgg gis ma parisien la juumuloo benn yoon cas bi boo bëggee nga ñëw ñu traité ko live lañ koy def man ak yow nga may jël di wax may wax di la delloo dama koo fekk copain moom copain moom ba baat dema ma jël ko di ko at ba ci kaw di ko tël ci suuf di ko bëgg a joole lu neex yow nga ni sa aana daa saf yow sa aana saful dërëm aana yi saf yi du ko jumboo kenn du ko poobar loolu judduwaale la màgget mu dem kooba tuju ba ay weenam ruy daanu mu defar jiwaat ko koobatoo koobatu ba yow say toogukaay baaxul nga ne yow kan ngay xas man mii nga xam ne naturel man fu may dundee sant dama ni la nga nekk nit doo day parce que doo puubu mbaam nit nga neefal sa bopp nit kaa bi bu ma si duggee léegi mu jeex ndax sa dossier dama ko téye nii toog ci damaa bëggul mu ñaaw nag sa dossier almadi kër ga nga dëkkoon tuxu fa wàcc fa ay xajaki ay gàllaa bopp xajaki ay gàllaaja ki photo lépp ngeen man sa dossier boobu tubaab ba moom kër ga may ko doomam dossier boobu lépp sama diggu loxo rek leel yoruloo fi dërëm sa làmmiñ ngay mottalu ko ak sénégalais yi nga mën a ndax nga xamante ne ko am am da leen a tiital koppar da leen a tiital xàmmeew ñu ko am ak ku amul yow nag bu la neexee xoolal moomal àdduna bi moom lépp moomal lépp ngay jël sa Range Rover ba may yéeg sama taxi ba sama kalandoo fu ñu dajee ma lay ñaf jafee du mas sa moroom guerre bi nag mu ngi doog a commencé kaa bi nañ ci ñëw ma xool kaa bi sax léegi na neex tubaarkàlla macha allah aw ma dara nag ndax du ma wër di duul di jël ay këru jàmbur di fay ay 1 million par mois di li yoral wër borom kër ga 3 mois du ko fay di tuxu wacc fa ay bopp euh, bopp xaj wacc fa samay photo yow sa dossier mu ngi ci man yow dañ lay nettali samay dossier mais man sa dossier carrément moom laa yor gis ma ma toog rek nag sama jàmm ji bëri lool li ma xam a bëri ci digg réew mi du da bëgg nañ ci dem nag nañ ci dem man daw ma saalo yaay ndeer man du ma sa ñii ngay waxal ñu naan nii man kaa xoola kaa par kaa loo indi ñu indi leneen daw ma saalo yaay ndeer que ça soit très clair nag sa làmmiñ ngay mottalu koo am naa lii am naa lee ñun mottalu koo ñu dërëm amuñu dara ceeb keccax la ñuy xëy di añee moom sombi la ñuy reeree te fu waay taxaw ñu taxaw fa te kenn gënuñu ñun xam nañ sa dossier yépp de sa dof dof lu boobu jaay ko ñeneen su dossier yëpp lañ xam toog ci bul ñu gis nag ñuy ñuy woote jàmm rek ba nga foog ne leneen la ñoo la gën a pare foofe ñoo la gën a pare fuuf yow sa xam nga ay toog di ñor di ay am naa lii am naa lee te foo dëkk doo fay bañ génnee la yooyu yoo la sonal man yooyu sonalu ma man sombi ma noos euh, euh, poñse ma noos mburu fonde ma noos man yi la sonal yow man sonalu ma waaw kooba bu salte nag buñ koy wax dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa tax lii woo waral nag premier jour ba nga bindee sa sinab naan xale bi dama ko bëgg na ñëw ma may ko enveloppe ñu bëri ne ma bul dem ñi ma waxoon bul dem ñëpp tey jii laay doog a xamee lu tax ñu waxoon ma bul dem te dinaa ne leen jërëjëf parce que rëccuwuma lu tax ñëwuma ndax sa un bu ma ko lekkoon nga boole ma sa ñooñu man nag maa gën a pare sa ñii man ak yow xoolal chaque jour dangay wax jox ma ma wax delloo la boo loo indi rek xoolal loo bax rek ñu ngeer ko